alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seer na mul benn buur bu nu war a jaamu ñu moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baalu àq tey ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñun ñépp bokk yi sunu xutba mi ngi jëm ci min xasaisi ramadan mooy lenn ci jagle yi nga xam ne weeru koor am na ko ngir ak màggaayam akub dayoom lenn ci jagle yi nga xam ne weeru koor am na ko ngir ak màggaayam akub dayoom bi ci jiitu mooy xam ngeen ne weer wi ñu nekk ci la suñ borom subhanahu wa taala wàcce alquran moo waral mu wax ne weeru koor ci leen wàcce alquran muy ak njub ñeel doomu aadama yépp ci kaw suuf hudan li nas wa bayinati min huda wal Furqan. daa di wax ne fa man shahida minkum sharna fa lesam ku yàlla dogal ngay dund ren ba déwén weer yi fekk la fi amoo jann tawat wala jann ngant gu la tee woor suñ borom nee na na nga woor alquran jooju nag mooy dusturu ummatu euh, euh, ummatul islamiya constitution bi nga xam ne moom la jullit yi war a attewoo benn constitution la muy bii nga xam ne mooy alxuraanul karim bii fi nekk ci suñ réew mii ak beneen réew boo xam ne réew yu jullit ya bu réew bi ci suñ réew mi français rek ñoo ko fa indi tënk ñu ci tënkin woo xam ne nit ki sax du mën a dund diineem na mu waree boo xam ne bu neexee dindi benn article indiwaat beneen article lu leen arrangé woon ñu dindi ko su leen neexee attewu ja su leen neexee bañ caa attewu article boobu day dikk war a atte loo xam ne gis nañ ko ci réew mi ñu war ko caa atte ñu bàyyi fa article boobu jalgata ko demaat ci leneen boobu constitution du constitution julit ñun li ñu suñu borom jox muy ad dustuur al umma al islamiyya huwa kitabullah wa sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam qur'an joju mooy sun dustuur moy téré bi nga xamné julit bu ci nekk rek war nga jéma xam li ci yàlla wax li ci yàlla santane li ci yàlla tere li ci yàlla digle kon lolu moy sunu constitution muy alquran alxuraan moomu nag bokk ñaara képp a ca nekk waad ak waid dël ak xuppe maanaam waad ak waid rek tahdidun wa taqwif su borom day da ciy ragal loolu doomu aadama ba noppi di ko ci jajj di ko ci xupp bëgg rek mu tegu ci aw yoon mooy téere bi nga xam ne képp ku ci jàpp te fas yéene ca jaar ni ko lislaam santaane ne ku ci jàpp noonu nga ca war a jaare boo liggéey duñ duñ la audit suñ constitution bii ne ku ci jàpp donte ñun ñëpp moo ñu tënk ci Sénégal soo liggéey faw ñu bari des na leen ndax li ko waral mooy lañ cay woo lu baree bari du diine ay texte rek la yooyu ñu tubaab bi dañu indi ko léegi-léegi nag mu juuyoog diine nga xam ne yow donte yow yaa ne ci dëggit dañuy jël ka nekk ci dañuy jël sa dëgg googu jox ko keneen koo xam ne nekkul ci dëgg moo waral yonte bi sama nee na yowmal xiyaamal akbar attakat yii nga gis ñu atta ci tribunal yi benn bu duggee a àjjana ñaar dana dugg sawara xaaduñ fi janna wa xaadu yaan fi naar moo tax méccam avocat ak méccam attakat méccam mu daasalam mu doy waar moo xam ne jullit bi ci boppam dëgg la dana ko jàng da ngir xam ko waaye bu jëlul yàlla teg ci kanam métier ma mën na ko yóbbu sawara ndax constitution bii ñu jël di tëral ñu ko ngir ñu attewu ci bi nu waroon di attew muy alquran tribunal bi ci nekk waroon na am xaadi lislaam maanaam koo xam ne day laata lislaam bu ko indee ay texam moom muy di ko indi ay aayam ñu sukkandiku ca jàll moo tax tappale yi ngeen gis réew mi du fi jóg mukk ci kaw suuf kon boobu mooy jagleel benn jagleel bi nga xam ne suñ borom jagleel na ko weeru koor muy wàccub alquran muy wàccub alquran ñaareelu bokk yi mooy weer la woo xam ne suñ borom da ci ubbi bunti àjjana yépp tëj ci bunti sawara yépp Jeng seytane lepp lu way def ci lu bax mu fulal lako ñettal bi moy kep ku wor nga ndogu jox ko yaw mako jox sun borom da la fay yool bu tol ne yoolu bam cey am mom sa du wañ ci seen ñeen ñaar kenn sab dara mo waral ku ko yalla man lo ci sa wërsëg fépp fo barab bo xamne ne fay defe lu bax wala ñu defa def ay ay berna diko ko jox ñoy woré ya, lo ca man def ko ca yalla tax ñentel bi moy gudde nga ci go xamne ne guddi yépp moo ci gën laylatul qadr xayru min alf dhari guddi yépp guddi googu mo ci gën ca guddi gog kat li ci gëna doy war moy bu sun bu guddi su guddig laylatul qadr ci la yalla di bind ñi de wen ak ñu dul de wen ma waral guddi googu ken waru ko nelaw ken waru ko nelaw lu way xam ci lu bax war nga ko def ñaan fekk de wen fiyaa yufrax kulla amr xakim kulla amr xakim rek foofu lañ koy foofu lañ koy def lépp loo xam ne dana jëm déwén ci guddi googu lañ koy yeesalaat ñi fekk déwén ak ñi seen wërsëg di yokkoog dégg nga ñu dul fekk déwén ak ñépp ci guddi googu lañ koy defee kon jagleel la goo xam ne guddi gi laylatul xadar am na ko moo tax sun yonent bi sànq ne ku yàlla xañ yiwu guddi gi laylatul xadar xañ na la àdduna ak la ca biir xañ na la àdduna ak la ca biir juróomeelu jagleel bi bokk na ci mooy. xëdd li wuuteeg jullit yi ñun jullit yi ak ñeneen ñi nga xam ne ay jullit ci li ñuy tudde seeni koor mooy xëdd léeg-léeg nga dégg nag nit ku ne mënumaa jóg fajar naan wala xëdd nangam bokk yi xëdd lu am solo la yonente bi sansam nee na woon tasaxaru fa inna fi suhuri baraka dee leen xëdd na xëdd barke nga ci walaw jur atama donte da ngaa yew fajar naan guxum ndox tëddaat ku ko man dee ko def ki xëdd du bokku ak muk. mukk lu jaar jalla ji tang tang tang nga jug waxtu nan naan guuxum ndox wala nga mos dara do yam ak ki nga xamne defuko ci becc gu wéru ko ndax barke bi ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñu ko sant te ñi fi njëkkoon daan wor motax mu faslu faslu ma bayna siyamina wa siyam ahli kitab ak lu suur li wutok suni suñu koor ak koor ahli kitab moy kon ku man di xëdd del xëdd juróom-benneel bi bokk yi ci jagleelu weeru koor weer wii bis na suba muy fukk fan ak juróom-ñaar ci la gazwatu badrul kubra amoon ci la jàmbaari lislaam ya saxaaba ya góor yàlla ya ne ca biir tooru xare am ci ñoo xam ne doonoo woor jàmmaaroog yéefar yi 313 jàmmaaroog lu mat junni ak nangam ngir lan ngir taxawal lislaam inna diina inda laa islaam rek ñuy xeex ak ñoom ci naaj tàng jër ci fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru koor wii yàlla may leen ci ndam yàlla yoon yónni waa ahlul malaayik malaayikul ala malaayika yëpp ñu jàppale jullit yi nga xam ne da nga jekki-jekki gis gis bopp bi yëfal dagg te du xam lu ko dagg te du xam lu ko dagg suñu yoon yónni malaayika yi ñu jàppale jullit yi ban nga ñu yéefar ci fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru koor wi ñu nekk te saxaaba yi ci boppam booleeg booleeg nag seenu njàmbarte ak koor gi ak tàngaay wi ngir lékkati raayub lislaam moo tax saxaaba yonent bi sax sam ne ma yi mooy seen bàyyi ci diine kon nan roy saxaaba yi ci fit ci njàmbaar ci bëgg diine ci yëkkati lislaam moo tax ab jullit wërta doye de lislaam wërta fekkat fu ñuy doye de lislaam muy noppi donc bu fekkee ne xam na lan mooy diine lislaam bu fekkee xam na lan mooy dëgg-dëgg lislaam fep fu ni doye dal l'islam nga di julli nek fa participel jugal nga wax lesa lesa doole la nga xamne xam nga xam nga ko ci bir l'islam waye waro tok ndax ñiim sahaba yi kat ba ni dara fa l'islam mu jub ci kaw kenn ku ci nek da nga bayyi bayyi bayyi won ci si lépp xam na ji le bisub de ku deewu gorewo ñu bari dal na won tay la bisub de ku deewu gorewo ñu dugg ci bir sapasi si jàmbaaroo jasi yay daw fet yay daw bal yay daw خير يا داو تخل نبوسو كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جم أكفت أفل ما يتخوى الدين جم أكفت أفل لب لو تخوى في الإسلام موقف موقف يتخوى واي يا شارل رجل تبت دينغ تايل تخوى درجة الإسلام أدنى سلو تخوى تخوى تخوى درجة الإسلام كن بسنا سوبر بوكي كي لغدو تبدرت ama amee muy lu am solo bokk na ci jagleeli weeru koor muy juróom-ñaareel bi ci la suñu borom ubbi won fatxu makka moy bi nga xamé yonent bi saa salaam ak jugee na madina bim ga dayé ba delsi wat fatxu ngo nga tudd nañu fatxu makka ci sar wo wàccoon ci idaa jaa nasrullahi wal fatxu wa raayta annaasa yadxuluuna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba nga xam ne ca la wàccoon mbooloo mu bare bari dugg ci lislaam ci weeru koor wii la woon ci bokk na ci jagleelu weeru koor nuurul islam daal di wër fépp sarqan wa garba suñ borom daal di dimbali yonante bi sallallahu taala alayhi wa la nee woon ci diine lu ko ëpp fuuf dugg ci biir lislaam ngir gën a doodal lislaam bokk na ci ci jagleelu weeru koor yooyu ba tey muy juróom-ñetteel mooy ku ko yàlla man loo demal nga umra ji dem ziyaara ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam dem makka umra ci weeru koor lu am solo la yonent bi sax sama nee na képp ku umra ji ci weeru koor umra gi mook aj ñoo yam am beneen riwaay dikk ne nee na yonent bi sax sama ne bu nee na képp ku umra ji ci weeru koor maa moom ñoo ànd di aj kon ku yàlla dogal nga man ko demal umra ji siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom-ñeenteel ba mooy ci jagleelu weeru koor mooy weer la woo xam ne day faral nit ki ay bakkaar ak i ñaawteef yonent bi sansam nee na képp ku julli julli juróom nga julli ajjuma ba ajjuma ba delsi nga weeru weeru koor ba weeru koor ba delsi suñ borom dana la faral faral sa mbooleem bàkkaar yépp su fekkee ne danga dangaa moytandiku bakkaar yu ndaw yi suñ dana faral lamam yi mooy yu tuuti yu ndaw ndawaan yi ngay def boo moytandikoo nag bakkaar yu mag yi jëw fenn rambaaj njaalo lekk ale jaamur dégg nga ak yeneen yu mel noonu ngistal yooyu su fekkee moytandiku nga suñu borom dana la fekk dana la jéggal say bàkkaar beneen bi ci des muy fukkeel bi ak benn mooy yonent bi sansam dafa wax ne sarqa ci weeru koor mu ëpp doole ci beneen weer bu dul weeru koor ci beneen weer bu dul weeru koor loo ci joxe rek suñ borom da lay fulal kem lu ëpp li nga xam ne moom nga ci joxe fukkeel bi ak ñaar mooy weeru koor bokk yi day ponk ci ponk lislaam yi lislaam doomu aadama munta mat mukk lu dut mu gëm ne weeru koor ci rukk yi ne bokk képp ku ko weddi nag képp ku weddi wujubu ramadaan weddi borom bi subhanahu wa taala moo tax suñu borom wax na yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam ay furida alaykum siyam كما كتب على الذين min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun boobu nag bokk yi dañ koy bàyyi xel koor gi ñàkk a lekk ñàkk a naan ñàkk a def nangam ak nangam lenn képp lam ni war a jural mooy la'allakum tattaqun mooy ndax lee ñu ragal ci borom subhanahu wa taala fukkeel bi ak ñett mooy doomu aadama bu ci nekk bu fekkee da ngaa tabe weeru koor ci la sa tab war a gën a yokk yonte bi saa saa nee na ak tabam moom rasulullah salaa salama ci weeru koor la daan gën a yokk donte yonent bi ku tabe woon la waaye bu weeru koor jotee tab gi day gën a yokk ban xam ne yonent bi saa sallam gii mi ak tabab yokk na fukkeel bi ak ñeent mooy sunnaa sunnaanal nan ku ko man fukki fan yu mujj yi nga féete woo jàkka moom la tuddee al i'tikaaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fukki fan yu mujj yi masaana jot ca jàkka ja daan féete daan yee ak njabootam ak soxna yi ñuy ànd di taxawal guddi a tahajjud di naafile ak a ñaan yàlla ba weer wi di feeñ ku ko yàlla man loo mooy nga di nga di ko defe ci jàkka li atikaaf fukkeel bi ak juróom muy bi ci mujj bokk yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne weeru koor njëlbéen gi yërmande la digg bi ci la nekk njëggalu suñu borom la mujj gi itqun mi an-naar kon weer la woo xam ne bokk yi kenn waru ciy caaxaan kenn waru ciy fo kenn waru ci def la ne naka su noonu yii ngeen gis ci àdduna bi bu weeru koor dikkee ñi bëgg a jaay seen seeni wax ak seeni jëf produire ay théâtre kat ñuy saboote diine ji naan léeg-léeg ñu ne koor gi nangam am na ci ñoo xam ne sax mbërum làmb doon koy tuddee wala leneen ak yeneen koor dafa bokk ci faratay suñu borom yi jullit bi war koo respecté lu mu ca mën mu di ko def ci yàlla tax fukk yeeg juróom yi ak yeneen yu dul moom yii fukk ak juróom la yoo xam ne suñu borom rek ci weeru koor la ko jagle amul beneen weer bu mu ko jagleel loolu rek war naa tax ñu fonk ko cay ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ne ñaan nan ko ci yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla nañu yàlla jégal suñu bàkkaar yàlla na yàlla dogal ñu yàgg ko woor ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا يا الله ودمر كل أعداء تدربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر سياسة ما شرف من وشر عين يا الله وشر سهر وشر القلق إن ذي هموم عجن وضوارس يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ما ذلك على بعديث يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين